seede ak kennam seede ne muhammad jaamam la ndawam la julleem ak sëlmalam yàlla tàbbi ci moom ak i ñoñam ak saxaabaam ak liggéeykatam bu tedd bi ak képp ku roy ba bés penc mbokki jullit yi tey gannaaw bi nu génnee ci sunu xutba bee ci fàttaliku li nga xam ne daa jar di fàttali bés bu ne tey ñu fàttaliwaat dugg ci xam-xam ak boroom xam-xam yi ak li leen yàlla defal ci daraja yu kawe ñu war koo xam képp ku la yàlla jox xam-xam xamal ni def na jox na la daraja ju kawe bul xeeb sa bopp ndax yàlla moo wax ñu xam ne yàlla du nangu jenn jëf ci lu dul xam-xam lépp da ko teg ci xam-xam ba ci jëfi àdduna yi gisu leen képp kuy defar loo xam ni xamu ko ba ba noppi la muy defar rafet déedéet da ngay jàng métier mi ba xam ko saa boo ko defaree ñu ah waaye kii de moom mën na kee de mën na waaye boo ko xamul li ngay def du a baax moo tax diine itam noonu la du làmbatu rek ndax yàlla moo wax ne ñi ma ragal dëgg-dëgg mooy borom xam-xam yi innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama nee na ñi ma ragal dëgg-dëgg mooy borom xam-xam ndax yàlla moo saxal ci ñoom xam ne ñii ñu ko ragal lañu ndax moo wax ne ñi may nangul bu ëllëgee mooy ñi ma ragaloon innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ma ragal ñoom lu ñu def lu mu tuuti tuuti rek ma nangul leen ko xam nañ ma ba noppi ragal ma yal na yàlla def ragal ci ñun ndax képp ku ragalul di ku xamul dara mënu koo ragal li nga xamul mënoo koo ragal gone sax lim xamul day dem jëm ci yow yaa koy xëy na xamul ne sawara si ni mu ni mu wala lii mu lii bu ci jëmee day gaañ yaa koy téye nit ki lim xamul koo ragal mënu koo ragal mukk moo tax ki ki jàng ba xam moom moo mën a ragal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ña ngeen sàkku xam-xam ndax xam-xam nee na xamlu gi ragal yàlla la xamlu gi ngay dem di ko xamlu rek dugg na ci biir ragal yàlla sàkku gi nga koy sàkku jaamu yàlla la njàngale mi ngi koy defante seen diggante sàbbaal yàlla la soo fa nekkee yor sa téereb tasawudu siraar mbaa jawharu nafis mbaa lu mën a doon di jàng diggante boobu rek bul jàpp ne sàbbaalu tegal sa kurus fee jarul ngay yor yaa ngi sabal yàlla ci biir li ngay def ndox li nga def yàlla am na ay malaaka yoo xam ne ne la keral leen ñii ñii di sàkku xam-xam ni ñu keral leen ci seen i làpp waaye yow doo leen gis yaa ngi sabal yaa ngi am daraja yu kare gëstu ko nee nañ jihaad la gëstu xam-xam jihaad la xamle ko ko xamul sarax la wala leen sarax ni màggee buñ ñëw bu ci doon wax rek du fi xaj sarax nee na ci xam-xam la ñuy xame yàlla ci lañ ko mën a jaamoo ci la ñuy sante yàlla ci lañ ko mën a wéetale kon mooy mooy njiitul xam-xam mooy njiitul jëf jëf day topp ci gannaawam rek jëf day topp ci gannaaw xam-xam gannaaw ba nga xamee ba noppi jëf day ñëw topp ci gannaaw moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu moom wax ne xam-xam ak jëfi nee na ñaari wurus lañu yoo xam ne këru àdduna gii la ñeel ak àllaaxira dañuy xëcc njariñal këru àdduna gi ak këru àllaaxira nee na bi ci gën nag mooy nga jiital xam-xam sëriñ bi tekki nag ne bi ci gën mooy nga jiital xam-xam benn bunu ci waaye jiitalal ndax nee na ne képp kuy def te li ngay def tegoo ko ci xam-xam nee na sa jëf ji ngay jëf day mel ni pënd bu ñu wasaare rek leneen julli ba noppi nga ne ko waa yow lu ciy farata li nga doon julli lu sunna mu ne ah man de xaw ma ah waaye war nga koo xam yi de xool leen léegi xam-xam nga xam ne gone yi lu ne mën nañ koo xam ci seen kii yi waaye ñaare koo ci laaj ne ko ndax xam nga say farat ak sa sunna luy sunna yu julli luy faratay julli su faratay jàpp lu mu doon su ndey jàpp lu mu doon ponki ngëm yàlla lu mu doon ponki lislaam ñaata la ponki lixsaan ñaata la ak luy lixsaan ñaare duñ la tontu te ay jullit lañ dañoo seetal suñ bopp baax te xam ne xam-xam sëriñ bi soo gisee mu sonn ci ñu sàkku ji xam-xam nga xam ne téere yi ñu bindal ni mu bare te lépp ngir ñu sàkku xam-xam li ko tàmbalee ci tasawudu sixaar ba téere yi mënuma koo lim bu ma ko fi limee day yàgg day guddal xutba ba ci nax ju bi nga xam ne dugal na ci yar bi nga xam ne moom la war a àndal ngir ñu sàpp xam woote bii sëriñ bi woote démb ci njàngum alxuraan njàngum xasaayit gis nga xasaayit ki koy déglu mu neex ci baatub jàngkat ba dong tax mu daanu wallahi ki xam li ci biir a ko gën a mën a daanu ki xam ni ci biir a ko gën a mën a daanu ndax day melni ni day ak Serigne Touba bu buy taggu yonenti bi tagg jëm koy tagg neex gi muy neex ci mom su day julli ci yonenti bi julli gi muy julli ci yonenti bi ni muy neexe ci mom su day wax période yamu nekké won ci tukki ba ak wétal gi mu doon wétal yalla da nga yegné da ngay melni ni yow fofu dang fa mëna dang fa daanu sax ndax wét gi mu wétoon ak nasarani bolé ko tagg yalla ak wétal gi mu wétal yalla nga diko ko lolou bu duggé sa xol daanu sax ngay def ci boo ko xamee ñi xam xasaayit moo tax sëriñ bi di woote njàngum xasaayit du du surgaloo gi nii rek dem ci bernde yi dem ci kii yi waaye dafa dafa dafa am solo dafa am solo dafa rëy ba tax na nañ sàkku xam-xam ba xam li tax sëñ bi di bind lu ne dañ koy way nii rek nga ne ah kee de moo ci gën a neexi way moo ci gën a kii waaye boo ko xamoon ci li ci biir wallahi doo ci doyal moo tax sëriñ bi së sëriñ Mountakha du ci doyal boo xamoon ni ci biir li sëriñ bi wax nañ ko xam ci biir eh, nañ ko firi ci ci ci tubaab nañ ko firi ci anglais ngeen ngeen xam ko waaye gone yu bari xamuñu loolu ñu ngi seet yeneen yu ñàkk solo waaye am na ci ñoo xam ne bu ñu demee ba ñam ko dootuñu gisee ci leneen am na ci gone yoo xam ne ñu ngi dëkk ndakaaru tey boo leen gisee ba ñu demee ba ñam xam li sëñ bi wax ak njariñ li leen andil xoolatuñu leneen boo leen gisee sax bu ñëwee fii ñoom ñooy raw ñu ne fii sax ndax ñii dañuy dem bay royi tubaab yi ñoom ñoom dellu nañ ci fañ fañu kon nañ fexe ba xam sëñ bi te xam-xam rek lañ ko mën a xamee nag mënoo sëñ bi kenn mënu koo xamee ci leneen bari na ñu naan sëñ bi kenn mënu ko waaw dëgg la kenn mënu koo xam ndax dafa bind ci xam-xam loo xam ne dafa jaaxal sax boroom xam-xam waaye nag li mu gën a mooy xam ci lañ koy gën a mën a xam ci nga koy gën a mën a ragale ci ngay gën mën a xam ni kii ku jar a topp la waaye ku xamul moo tax damay wax ne ñiy weddi nii dama leen ne man de dama leen di ñaanal yàlla ku ci yàlla nar a gindi danga nga gëstu téere sëñ bi ku ci yàlla gindi ba nga gis téere sëñ bi gëstu ay mbindam wallaahi danga nga delluwaat lee nga nekkoon génn ci ku ko gën a bëgg sunna man gisuma ko ku ko gën a bëgg yonent bi man gisuma ko ku gën a mën a tegu ci sar yi aman gisuma ko gisuma ko تجينا دمنا فونا ناري جسنا جسنا لين هاو آه. موتاخ سيغ بي لول لا واخ دا دي واخ ني كيب كو خام دا غاي دافي خام خام تي تيغو كو تيا نينا نغا ملني سي بوند بو بوند بو وساري واخ ني كو ام خام خام تام تي جيفي ووكو نينا يان با موي سيفي تيري دو غايا القران دي واخ ومن حوى علما وليس يعمل به فانه حمار يحمل جاء القران كما سيل الحمار يحمل اسفارا ني خام دي ني ديغ دارا seen xol seen bët yi du leen gis ni ñu as asamaan si ku ko bind ngelaw li oxygène bi ñuy noyyi du ñu am xam-xamu ku leen ko jox liy dox du ñu am xam-xam ku leen ko jox yàlla ne ñooñu kamasil ximaari yaxmilu asfa yàlla nu yàlla musal ci ñooñu kuy dëgg ci suuf si te xamoo xamoo dara ngay xool ci kaw asamaan di xool biddiw yi te xamoo dara di naan ci ndox mi te xamoo dara waaw ah, loolu sa xol tëju na yàlla nu yàlla musal ci xol bu tëju waaw moo tax sëñ bi lam ci teg ne na ngeen sàkku xam-xam te bu ngeen koy sàkku jëmmi yàlla dongu tax bu leen ko sàkku ngir puukaréew bu leen ko sàkku ngir xëccoonte dara taallamu l ilma li wajhillahi duna al munafasati wa tabaahi li xew léegi am damay sakku damay wut xam-xam ngir mën a génn doon nangam bu ma génnee doon nangam mën a nekk ministre baa ma mën a nekk président mbaa ma mën a nekk ambassadeur yooyu dafa am njariñ li am njariñ mooy ragal yàlla li ma doon wax président ban njëriñ yi ki ne coono bu bari ministre ban nga ne ci ne teg nañ la coono gàll nañ la ko loo xam ne doo ko mën nga gàddu ko bu ëllëgee ñu di la reetaan ne la wàcc ban njëriñ yi ci ne waaye soo àndeek yàlla doo wàcc ba mucc yàlla nañu ànd ak yàlla te xam-xam rek moo ko mën a def waaw xam-xam day day yëkkati aw nit day yëkkati aw nit ba mu kawe waaye dana suufeel nit itam boo bokkee fu baax te amoo xam-xam mën ngaa soofe waaye boo bokkee fu fu foo xam ne xeet bu ñuy xeeb sax nga am xam-xam sax mën ngaa kawe ba ca kaw yal na yàlla defal xam-xam waaw yonent leeral na ne xam-xam euh, yàlla du nekk lu xam moo ndax ne wax nañu ci lañ ci la ñuy xamee yàlla ci lañ ko mën a jaamoo wax nañ ne bu keroogee bu keroogee yowmal euh, yowmal xiyaam bu ñuy dem bi jéggi siraat gi ngi siraat ni mu méttee ñi nga xam ne dañoo am xam-xam seen kar xar kanam day leer naññi koy day mel ni da cee def benn làmp mu leer nañ nee na jox leen euh, leer goo xam ne ci seeni loxo lay ne benn daraapo lu demee ni drapeau boo xam ne euh, nee na leer googu day leeral doxub juróomi téeméeri at yoo xam ne bu ñu ko doon dox bu ko nee tay foofu day leer nañ muy jaar bu ko neex képp ku ko bëggaan itam ci biir drapeau bi ñu ko jox la ci biir mbaar mi ñu ko jox da ngay ànd moom ci bëgg yi ñu ko bëgg rek yàlla na yàlla def foofu ñu bëgg ñu baax طوبى لعبد مريد صادق له بخدمة أو بحب أو هدية sëñ bi moo tax wala xub dañu yàlla defal bu ñu mënut ñu bëgg ñu baax ñi bokk bu ñu mënut ñu bëgg ñu baax ñi wax nañ ne bu keroogee day am yàlla ne ko wooteel mu woote daal di ne ñii ñii de ñooy gaay yi yàlla yi borom xam-xam ñii ñooy gaay yàlla ñii ñoo fi wootu woon yonent yi ndax bi yonent yi demee ñoo fi nekk di wax dëgg moo tax képp kuñ gàll xam-xam am nga responsabilité bu mag ñi ñooy gay yàlla yi ñooy xamal jaami yàlla yi ñooy woote jëme ci yàlla ñooy wattulu fi yàlla yem loo ñooy làmp yi nga xam ne ñooy léeral ñooy leeral waaye li ñu gis ci léegi ci ñi ma ko waxee ci gone yi ci soxla woolu amul njëriñ inxiraaf bi ñu def soxla woo xam-xam boo xam ne amul njëriñ bàyyi fi alxuraan yaru alxuraan ñu teg ko fi loolu mel na ni laa yubashiru bi xayr wanewul ak njub wanewul lu baax li ñu gis léegi xam-xamu tubaab bi rek lañu la lañu la ñu xam-xamu adduna rek te adduna li ma ko waxee ne day jeex dañ ci bàyyi xel moo tax yonent bi dafa wax ne képp sàkku xam-xam ngir puukaréew ngir réy réylu ko sàkku ngir am ah, ban man si ban ban ban ban kii nga mën a soxla naa nekk juge naa nekk attikat ne yow loolu nga sàkku ngir réy réylu wala nga sàkku ngir puukaréew walla nga sàkku ko ngir ngistal wala nga sàkk ko ngir ñu dégg la ne diw te jubluwoo ci euh, yàlla wala nga di ko ngir am loo ci jëlee richa ngir saa bu ñëwee rek yow yaa ngi ci bunt boo xam ne koo jàllalul du jàll ba nga xam ne day làmb poosam jox la nga man koo jàllale loolu tax nga sàkk ko nëbb ko leeraloo ci yi jaar di ci sàkku rek nguur di yi tamit yi leen ko di tax nga ngir ànd dem ànd ak yi ñi nekk ñi jiite bëgg la xam naa ministre diw xam naa député diw xam naa nangam diw xam naa nangam diw tax nga sàkku xam-xam boobee fu ñuy tooñe fu ne mën nga faa dugg yow du yow kenn du la laal nee na su keroog yow mal xiyaamee li yàlla di njëkk a def mooy dañuy ab laab goo xam ne ci sawara lañ ko la ne la ngaa ngàmme sa gémmiñ nga ngàmmi ñu ne ko ci képp nam yàlla musal ci loolu ndax la nga waroon a def defoo nga di ci àtte lu dul dëgg boo ëllëgee noonu la ñuy def ñooñu yal nañu yàlla musal ci loolu te bu xaroogee xam-xam bi day nekk aw lay ci yow day ah, day layoog yow danaan yàlla attema kii dafa maa xam ba noppi di jeng moo tax wax nañu yonent bi sallallahu alayhi wax na ne bu keroogee zabar yee ñi nga xam ne ñooy wattu sawara ñi ñuy njëkk mooy ñi jàngoon alxuraan nee na njëkk ñi njëkk ñi ñuy njëkk rek mooy njàngati alxuraan yi nee na teg ci ñi nga xam ne ñoo daan jaamu ay xërëm ak ñi daan jaawu sawara nee na su ko defee ñu doon jàng alxuraan ne waa ah waa lu tax ñu njëkkitu nun te ñu daan jàngale alxuraan malaaka yi dañ leen di tontu malaaka yi leen wax ne ku xam yemul ak ku xam ku xamul moo tax ñu njëkkee leen ñi daan jàmmu ay xëram dañoo xamul dara ñi daan jàmmu sawara dañoo xamul dara yéen nag a xam ba noppi def la kon nag nañu xam ne ku xam yemul ku xam ku xamul nañu ragal yàlla ci téeréem bi nañu ragal mbugalam mi nañu ko jëfe alcorane nañ ci xemem légui ñu bare bare ñuy bëgg a jang ka ci alcorane di leen duggal fo xamné baxul nañu lànk nañu tok fa maam ya togon rek di jàngale na maam ya daan jàngale bu leen kenn duggalul programme bo xamné wala duggal la ci xemem loolu lo xamné bu ëllëgé bu la ko joxatul nga tëm ne na manifesté wala na xex alcorane du loolu de yàlla tax nga diko def di sëñ bo xol ngir jëm yàlla am na ci ñoo xam ne yàq nañu barab yu baree bari te li tax ñu yàq ko mooy dañoo ñëw dugal fa seeni njariñ dem ba yàgg rocc ko ci sëñ daara bi sëñ daara bi lim yone ëttantu ko waxuma dara sax waaye ngëm yàllaam gi ñuy sippi sax jëru ko woon bu ñëwee mu ne dem leen ak seeni yëf naa doyloo yàlla naa doyloo yàlla waaye yu bari ñu ngi koy ñaawal nit ñi di ko ñaawal di ko ñaawal ba bari na ci sëñ daara yoo xam ne ñu ngi bëgg a dugg guuta boo xam ne nañ ci delluwaat nañ xalaataat bu baax a baax leen di financé yi ñu leen di jox te dañoo bëgg a moderniser nañ ci xalaataat suñu mag ñi fi nekkoon dañ daan yar te liñ daan yar ci seen doole lañ ko daan def ak ci seen xam-xam ak seenum xel kenn du leen mën a jéngloo wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne bu ëllëgee ki yore alxuraan li ñuy laaj yonent yi lañ koy laaj ba sax nee nañ ki nga xam ne yàlla def na ci moom alxuraan saa bu meree rek alxuraan da koy wax ne ko waa yow ma xanaa doo rus jànkatu na saa bu meree alxuraan da ko naan ko xanaa doo rus ma yore ba noppi di mer yaa ngi ma yore ba noppi di mer allahu xool leen loolu kon liggéey nit ci diine yi war nañ xam li yor de hmm? moo tax ay sëriñ bi yàlla ko fi yàlla bàyyi day reetaan rek li si ëpp day reetaan rek da xam li mu yore moo tax daa xam li mu yore hmm? waaw da alxuraan day wax wax ndax duus yaa ngi ma yore ba noppi ma nee na daf day wax ne la roy ma rek roy ma soo ma royee da nga mucc soo ma teralee danaa la musal su keroogee foo ñuy jégee siraat lépp danaa la fa musal man alxuraan loolu rek doy na dañuy eh, jàngale alxuraan di doy na sëkk wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne amul benn bàkkaar bu ëpp gaaral nañ ma bàkkaar yëpp waaye gisuma bàkkaar bu ëpp ku yor alxuraan ba ku yàlla jox alxuraan ba noppi nga sàggane ko wàcc ko ñu ne maanaam wàcc gi mooy lan mooy nga jàng ko ba noppi te jëfewoo ko bari xam ne dañ koy jàng ba noppi duñ ko jëfe dëgg la mën nañu suñu réew jëfewu ko waaye ku nekk yaa moom sa bopp ku nekk yaa moom sa bopp mën ngaa jëfe li nga xam kenn bañ la caa yóbbu sa daara ak sa kër man nga caa nekk di defe li nga xam alquran te it yàlla dalay jàppale ba kenn du la ñeme ndax alquran nga yore waaye fu jëm rek fu daw rek nga jëm jëm alquran nanguwul lool nee na gisuma bakaaru ki nga xam ne da koo jàng ba noppi te jëfewu moo tax ñu wax ne nga jàng lu néew jëf ju néew ju ànd ak jëfe moo gën ju bari te àndul ak jëfe moo tax Cheikhul Xadim wax ne na nga xamne xam-xam ak jëfé ak ak téggine moy tax nit ki mat sëñ bi nee xam-xam ak jëfé ak téggine moy tax nit ki mat mo lay jox kamaal waalam bi anna al ilm wal a'mal ka adabin tuksibukul kamal ñett yoy ku ko bolé xam-xam jëfe ay téggine pour ragale ci dara yow yaa raw président de la république loy sàkku loy sàkku amun jëri loy sàkku ministre loy sàkku député tax yow dootooñ kenn loolu boo ko xasee am dootooñ kenn koo gis da nga ko jox yar ba nga ko war a jox da nga ko teg fa nga ko war a teg da nga xam ni ngay doxali ci àdduna doo yàq waaye di ci des yépp boo ko gàddoo mën ngaa yàq mën ngaa dugg sa yoon newul soo dem moo tax mi ngi mi ngi digale ca tàmbali téere ba ne yow mi nga xam ne da ngaa jóg ba ne da ngay sàkku ci xam-xam kaay ma wax la man sëñ bi sëñ Tuubaa nee na yow mi nga jóg bay sàkku xam-xam kaay ma wax la te lima lay waxit nga jàpp ko bu baax sama wax yaa ayul ghadi ila taallumi haka wasiyati waraai kalimi lan la wax mu ne lii ngay sàkku ji dal def ko ngir jëm yàlla muy xam-xam neena soko defé da nga nek mbégum waliyu yàlla yi da nga nek mbégum borom xam-xam xana xamone wali ne yi fi nek yàlla dalena may tasarruf dalena may da ngay da ngay nekk ci lu baax bul tiit dañ lay jàppale fa ñu ne donte newuñu fi dañ lay bëgg sëñ bee koo xal bopp te kun surur al awliya wal ulama seen mbégte bul tiit dara waaye mënuñ koo gudd ndax sëñ bi ne bi saa boo sàkkoo xam-xam te lii ma la wax taxul nga def ko jubluwoo ci jëmmi yàlla nee na sa bakkan tax nga alal tax nga sa banex tax nga كوبا ko neena ko bo boba nak jaay nga sa aduna jende ko sa allah ya non inshallah musa مهما طلبت العلم أو سواه لنفسي والمال وما تهواه فبعت بالدنيا إذن أخراك ففر من هذا ما تقترا دي سابو لا غاري بوغا ييغني لولو يانغ سيغ بي نانغا كو داو نخا خامني جايغا سا ادنا ان شاء الله يالنا يالا جيغن يالنا يالا بولا سي نيمو جيغن yàlla nañ bokk ci taalibe yi Sëriñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg dëgg taalibeem yàlla na bésub bésub démb bi yàlla na ko yàlla nangu jotale ko fi ko santaane woon mu jotale ko tuyaa bi jotale ci mbooleem julli ñi xam naa ne lépp xaj na ci de lépp di xaj na ci yaxfirullahu li wa lakum wa li saa'il muslimin amin